أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ما أنفقوا منا ولا أذى لهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثلوا كمثل صفوان علي تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم waaw jaar jaar ci wàllum njàngum alquran bi man maa ngi dalee jàng fu ni wax koki, daaray kokki fa laa dogal ne boo fa dalee jàng fa laa nekk ba yàlla dogal ma xottu alxuraan jàng fa yéen téere daanaka jaar nañ tamit euh, ben dëkk bu ñuy wax Tiwaawan jàng fa ci côté Majaalis ak yooyu sa hmm. hmm. daara la seet si woon daara yi. mën daara ji nan la tudd ak lan mooy dégluwaay alamin daara ji mi ngi tudd daara El Hadj Ibrahima Silla nekk fii ci Kër Massar daara ji ñu ngi ko sos le 21 juillet 2017 li tax a jóg daara ji nag mooy jàngal doomu jullit yi téere borom bi tabaaraka wa taala ñu mokkal ko buñ ko mokkalee mën koo jëfee loolu mooy jubluwaayu daara ji incha allah. Dari interne internal, la wala. waaw dafa boole. fi la nekk baanaka at ba at la dem tabaski ba tabaski la jël feet allah. mën nañoo daara ay góor kese lay jàngal wala ay wala dafa boole ay ak ay waaw daara ji ñaar boleh, la boole góor ak jigéen la boole doon boole góor ak jigéen ñoo fi nekk di jàng téere borom bi daara ji moom quran rek la ñuy jàng comme ni nga xamante daara yi xam ne ko mokkal hmm. wala jàngale ñu ci boole waaye français comme ni ko ñeen ngir ndax daara ji am na ko ko di jàng wala keneen ku mokkale feneen sax nga jël wala di daara ji alhamdulilah daara ji jamono ñu toll ni eh, amagul école boo xam ne ku mokkal mën la faatee di la jàngal donte mi ngi suñ programme waaye la moo tax ba léegi mën nañu ko am mooy bërëb boo xam ne mën nañ koo def waaye bu fekkoon loolu yemb na incha allah lool dañ koy doxal loolu moo ko tee mën a am teewul tamit eh, am nañ benn programme boo xam ne jël nañ ko ci ñii daan incha allah pour jéem a taxaw xale ci côté français mooy xale yi nga xam ne xaw nañ féete kaw jàng nañ ba àgg ci xaaj bu kaw bi wala ñu jege xaajal xaajal kaamil bi programme boobu lañ jël ren incha allah pour jéem di leen defal ay cours français euh, bu ko defee bu yaa dogalee ñu mokkal day mën a yomb pour ñu mën a jàll ci école bi te duñ fa am diir boo xam ne diir bu yàgg lay doon incha allah. Hmm. daara ji ni euh, liñ programme nga xam ne moom lay daara ji jël pour ñu euh, mën a xalbee mën a commencé jàng fi gën ngaa néew ñu ngi naan sept ans wala six ans et demi gën ngaa néew ci loolu lañuy ñuy commencé des fois di nga dem ba mu ñu indil la ay douze ans treize ans des fois di nga dem ñu indil la mag mag bi nag moom mooy euh, volontaire wu ne dafa bëgg a jàng moo ko yëkkati waaye fekkee mag boo xam ne dafa ñëw boo xam ne dafa am ay problème biir ñëw yoonu kooku duñ ko jël waaye nga xam ne moom moo jël volontaire am na dafa bëgg a mokkal alxuraan kooku faaw ñu jàppal ko taxaw ko mu mokkal alxuraan ndaxte am na ay mag am na ay xale te mag ñi fi nekk nag lu tax lu tax ñu jël leen ñoom li yitteel mooy ñu jéem a mokkal téere borom bi loolu tax ñu jël leen waaye fekkee lu âge boo xam ne bi dafa passé comme âge bi ñu wax noonu dina gëstu ba xam ndax kii li ko yitteel ndax jàng wala problème moo tax ñu indi ko wala bëgg ñu yaral moo tax ñu indi ko kooku bu ñëwee duñ ko jël dañ koy rejeté. waaw waaw li nga wax noonu moo tax loolu la foofu lañ sukkandiku ba tax ne xale bi nga xam ne dafa weesu âge bi ñu wax noonu boo lay gëstu ba xam lan mooy problème am buñ xamee kooku duñ ko nangoo jël ndaxte jikko yi muy am am na ko ba pare te pour nga dindi ko du yomb moo tax euh, mën na ñëw jaxasoo xale yi jox leen jikko yooyu noonu te jikko yooyu nekkul loo xam ne yu gën la loolu moo tax âge boobu bu ñëwee moom dañ koy buñ gëstoo ba xam ne lii moo tax mu ñëw dañ koy rejeté duñ koy duñ ko jël daal incha allah. kon Hmm. waaw ku bëggoon a indi doom ci daara ji am na ay numéro yoo xam ne dañ koy joxe mooy sama numéro bu ci wootee rek incha allah sa numéro ban la numéro bi mi ngi 77 016 25 63 fekkee expresso bila la ngi nekk 70 770 75 am nañ tamit euh, numéro Tigo 76 240 22 45 incha allah yooyu mooy numéro yi nga xam ne képp ku ñu si woo rek incha allah di ñu jot. tamit xam ne hmm. xam ñu nekk waaye bu gën a mokkal seen suñu subhaana taala wala xam leen seen diine est boobu. waaw ah, programme boobu daara ji ubbi woon nañ ko waaye euh, xam nga rek des fois nga dëkk si yenn koñ yoo xam ne ñi nañ bëgg jàng ñi duñ bëgg jàng tamit euh, buñ koy doxal tamit benn taamu woon nañ ko waaye nekkul ne ñoom dañuy ñëw fii ci daara am nañ benn kër boo xam ne mi ngi ci bitti foofu lañ leen programmé woon pour jàngal ñi nga xam ne jëm nañ mag te xamuñu daal ci si seen wàllum diine te xamuñ daal si si konom nii jaamoo yàlla ma defee ñu dimbali leen ci côté boobu am na benn kër bu ñu ko doon commencé foofu waaye buñ ñu ñëwee ba mu ba mu yàgg rek dañu commencé di wàññeekuwaat xam naa ne jot geeg yooyu noonu moo leen ko dul may ak yooyu noonu incha allah naa ne. Hmm. ngi eh, programme ma masal tey ubbi hmm. am ay diplôme am nga hmm. nga ne xaj waaw bërëb bii ñu nekk nii fi mu toll nii dañ koo luye dañ koo luyee di ko fay par weer ndaxte loolu moyen boobu moo gën a tax ba ñun mënuñoo taxawal lu mel noonu ndaxte kooki gi nga xam ne moom lañ jógee programme boobu moo fa am ku mokkal alquran kom ni nga xame dañuy def ci école bi cycle élémentaire ba terme ba ba am euh, kii entrant sixième loolu day nekk six ans ñun nag euh, programme bi nga xam ne moom lañ jël pour boo xam ne bu ñu ko doxalee incha allah xale bi bu fekkee yàlla dogal na xelam neex mu jàng si ñetti at mokkal alxuraan ñetti at yooyu mën nañ ko cee faral mu am entrant sixième boobu leen jël tëral ko euh, te bu nu amoon fa nga xam ne bërëb boo xam ne mën nañ ko def li lu tax nag mënuñu koo def ñàkk mooy yoon boo xam ne fu ñu koy def ak yoon loolu mooy Euh, programme mooy muskila bi nga xam ne moo posé wu ba tax mënuñoo def loolu. ndax yi am nañ benn pàkk boo xam ne ñu ngi ciy yëngatu li ci daanaka lañ yoroon ko si néew def nañ ko fa pour tamit euh, jéem a xool comme li ñu wax programme boobu noonu jéem bu ñu demee foofu kom xam ne suñu yëfe boobu nañu xool nañ mën a def ba doxal ko foofu. am naa tamit euh, lépp loo xam ne moyen boo amoon def def nañ ko si ba suñu doole daal xam naa ne mi ngi xaw a wàññeeku i sàkku tamit koo xam ne mën na am moyen boo xam ne mën nga ñëw jàppale mu àgg ak jàmm ñu mën a génn ci li nga xam ne mooy local bi saa buñ ci génnee rek incha allah euh, loolu ñu bëgg noonu mébét boobu dinañ ko jéem a doxal incha allah. benn la waaye amaat na yeneen ñaar yoo xam ne ñi ngi ñu ko jox. waaye yooyu dana nekk yooyu dafa nekk feneen waaye bokkuñu barab bi nekk am na yenn ñaar yoo xam ne bokkuñu barab bi nekk benn mbokkum jullit moo ñu ko jox moom it pour jaamu si yàlla pour timit ñu jëm faa def euh, daara ak jàkk moo tax mu jox ñu ñaari terrain yooyu fii sabilillah mais benn terrain hmm. benn bi moom ñu ngi ci nekk di liggéey waaye àggagul moom lan nga leen wax ak ku bëggoon a jokk ko yow bëgg def ay ndimbal ak ci terrain nga xam ne borom subhaanahu wa ko commencé cee def ci sa moyen bopp ba hmm. liggéey bi toll fii mu toll xam naa rek nga ko si urgence yi ba liggéey bi toll fii mu toll hmm. waaye xañ na boo nekkee ci daara di fay luyaas ak luyaas bi ni mu seere hmm. xañ na dund ak donga yi te kon xam ne daara jafe-jafe yi ci nekk kon yaa ngi soxla mbokk yi nga xam te ne ñooy defal borom subhaanahu wa taala ñu lay déranger a moo nga a bopp muy xam ne moom moo gën bëggoon mën a àggale waaw ki nga xam ne mën nañoo bëggoon mënoon pour dimbale ñu dañuy joxe suñu numéro yi nga xam ne ku ñu si bi bi nga xam ne am na orange am na wave 77 hmm. 016 25 63 77 016 25 63 numéro boobu ku si woote di ñu jot ku ci envoyé tamit di ñu jot te tamit benn li ñuy sàkku mooy xeebuñ dara xeebuñ tonne ciment xeebuñu fer xeebuñu béton xeebuñu dara daal xeebuñu karo xeebuñu dara lépp lu ñu am rek dinañ la ko fa dugalal ba nga yéeg ne dugal nañ ko fi incha allah daara wax lu yàlla lu yàlla kër rek këru njaboot ak métti loolu nag daal nga xam fa nga nekk ci ëpp doo ko mën bokk kenn moom nga jël këram wala nga jaay ñaari dëkk du fay ku ne xam lu yàlla métti na weer weer moroom ci jegee na waaye jafe-jafe yi bari waaye nag comme moom borom subhanahu wa taala ko am fu am war a faa commencé rek liggéey ci ñaan ci bokk yi ci bëgg def sa alal ko non seulement ko yëkkal sa alal mën ko ci def waaye koo xam ne tamit ko boole koo xam la léeg-léeg ki mën naa bañ a def waaye xañ na xam na ñoo xam ne dañ ko jàppatee yàlla mën naa dogal nga mën ñëpp ci seen oustaz yitte woon na yi nga xam bi boo maa jox ko defal wax daara wax jafe-jafe waaw daanaka woo jafe-jafe moom am na waaye ñu ngi koy sante borom bi tabaaraka wa taala ndaxte eh, jafe-jafe yooyu yëpp ay ay yiw lay doon ndaxte ku wax daara internat des fois di nga gis ñoo xam ne dinañ mën li nga leen sas pour ñu joxe ko par weer di gis ñoo xam ne tamit duñ mën loolu dinañ ñëw ne la ah man de bëgg naa sama doom jàng waaye lii laa mën a xool noo ko jàppalee dafa ko di nga gis koo xam ne tamit dina bëgg doom jàng te du yor dërëm te tamit amul waajur boo xam ne mën na koo koo dimbale pour mu jang te tamit da ngay jël jàppale ko te leen lépp daanaka am na fii ci daara ji waaye teewul nag e, ñi ngi sant borom bi daal baanaka lépp loo xam ne ñu ngi koy warlu ñu ngi ciy jéem suñu kéemtalaay kàttan di ko def liñ mënul liñ mën ak luñ mënul yëpp ñu ngi koy jéem di ko def ci daara ji externat yi tamit am na cas boobu tamit am na fa yu mel noonu am na fa am na ci externat yi am ci internat yi ñaari côté yëpp am na koy ah. ah. ah. bi daara ji. waaw bi daara jo sosoog léegi yaakaar naa mi ngi tollu si juróomi at jàpp juróom-benn waaye yàlla dogal na ne chaque année dinañ am xale yoo xam ne mokkal nañ alxuraan. naa bu ñuy xayma daal ci xayma mu juumul àgg nañ ay fukk wala mu weesu ko donte maa ngi noote woon lim bi eh, lu la bett rek mën la loolu moo tax waaye yaakaar naa suma si sama su ma juumul si sama wax daal li fi mokkalagum ci ay xale ëpp na fukki xale bañ ubbeeg léegi te yàlla dogal na tamit am na ñoo xam ne ñu toll ni ñu ngi ci yoon bi jamono yi ñuy wax ak yéen nii ñi ngi toll ci fukk ak juróom benn wala fukk ak juróom ñaar ñoo xam ne ñi ngi ci yoon bi pour euh, wattu téere borom bi jamono ñuy wax ak yéen ñi insha allah hmm. amin amin daara ji mi ngi euh, Kër Massar quartier bu ñuy wax quartier Dingiraay ku fa bëgg a ñëw da ngay ñëw ba ci terminus 61 bi boo ñëwee foofu boo jokkoo ak ñun suñu numéro téléphone mook tamit ni so soriwul solonte wun dañ la tegtal ba nga egsi si daara ji daara ji daanaka comme kàddu yi ñu wax rek daanaka lépp lu ñu waroon a wax wax nañ ko xanaa di fàttali rek aka soññ bunt bu yiw bi nga xam ne moom moo ubbeeku comme ñi sama mbokk mi ko nekkoon ci terrain ba doon def reportage bi waxoon na ko ndaxte sadaqatun jaariya ndaxte euh, képp ku bëgg sa alal du ëllëg ku nekk la nga jiital sa bàmmeel nga moom waaye li nga wàcc sa ginnaaw est que loolu moomoo ko tuyaaba ga nga jiital sa biir bàmmeel mooy li nga xam ne moom nga moom ëllëg yow moom ngay fekk ji ëllëg sa biir bàmmeel mu lay wettali kon bunt boobu la ni eh, soññe rek di ci soññ képp koo xam ne mi ngi dégg suñu kàddu ak nu mu ci mën a mu jàpp si incha allah xam moom la moo xam képp ku ko mën a mu dégg ko mën see def aw allah. gis nañ na tamit ci réew am na ay ay ay ay ah nit bu amee programme def daara ak masjid da nga leen jox mu jàpp sañuy waa ñu mel noonu seete woon nañ leen waaye dafa am uh, kayit yu ñu doon laaj pour ñu lijjanti mooy ñaar terrain yoo xam ne joxoon nañ ñu ko ci yooyu lañ doon dox pour xool yooyu tamit duñ ko defaree yàlla dogal nañ am na ñun seeti woon waaye daam am kayit ñu doon laaj bi ñu demee nag ci fi ñu ko doon laaj ci bërëb ba nga xam ne fa la kii ba nekk ca maire ba bañ laajee pour dem wut autorisation dañ ñu ñëw mënuñu ko mënaguñ koo joxe dafa am. lu war jaar foofu ndax xamul na jaar foofu wala du fa jaar loolu moo taxoon ba léegi euh, loolu daga tembe ba léegi mën a jóg mën a guñ ñu ci doon def ay jéego hmm. amin amin amin waaw di sant rek di gërëm ñi nga xam ne ñoomay ci li ci bi ndaxte man mënuma ñoom ñi nga xam ne ñooy ustaas yi ñoom la ñuy sant bu baax a baax leen ñaanal yàlla gudd fan ak weer ak de ko sax dàq di ko ñaanal seeni njaboot di ñaanal tamit xale yi nga xam ne ñoo nekk ci daar ji yàlla yombal leen ak mokkal di leen ustaas di jàngal tamit yal na yàlla ubbi seen dënn ba képp koo xam ne luñ la jàngal rek mu dugg ci sa biir dënd dugg fa sax fa yàlla mën na ko yàlla nañ ko def di ñaanal tamit Euh, soxna yi nga xam ne ñoo nekk ci daara ji di rawat na ñi nekk ci waañ bi ak ñi nekk ci xale jigéen ñi ñëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla defal leen tawféex euh, yokk leen barke rawatina ustaas yi moom ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax a baax di leen ñaanal ndaxte tamit euh, nit da nga ko téye téye moom toog ba muy toog tamit dafay toog ngir yàlla xam na ne yàlla rek moom moo koy fay waaye yow mi nga xam ne yaa ko jël di ko liggéeyal sax mënoo koo fay. dangay nga yëkkati loo xam ne rek pour teg ko ci loxoom sax weer waaye boo ko doon fay ay million mënoo koo fay kon loolu dañ leen di ñaanal yal na yàlla barkeelal leen seen wërsëg la leen seen njaboot may leen wér may leen euh, gudd fan ba ñoomit ñu dem ba am lu ëpp lii ñu am yàlla mën na ko yal nañ ko yal na ko yàlla defal incha allah waaw. que más a los crímenes son críticos. Son para